kontaan nañ. waaw jërëjëf waaw. kon nañu dugg deuxième partie bi. waaw muy émission li ci làmb ji nekk nii. Mm-hmm. Karam Mbaye ñuy laaj valeur géwél. Mm-hmm. biy tëgg ci làmb ji tëgg. Mm-hmm. percu bi. ban rendement la amal làmb ji. la ak géwél bi. tamit soxla naa bàkk yi tamit. waaw bu ñu mbër da daan déglu géwél. bu njëkkoon. géwél da daan indi làmb. ñu sañse comme ni dóor gilet blanc ay pot ay benn pot borom daal ñu bàkku mm-hmm. su ne ana mbaykay ñu ne buree takki dat buree takki dat dat ki mu joxañ fi joxañ ñeenti ko ñu joxañ yu de bureet mm-hmm. mu tuus nit ñi ñibbi mm-hmm. loolu rek ne mu ñu ñibbi kooku loolu rek moo ko fii ni mu ñibbi mu ñibbi bu ne nii ñu ne Robert ñëw na. ñu dem ta ta ta ta ta kin kin tekin. ñëwal kin tekin ta ta ta ta kin kin kin. tekin tekin ta ta ta ta kin kin kin kin mu daan daa baax kin kin kin kin kin mu sox dugg si. nit ñi ñibbi. ñu ne non Robert bu xasee bu dugg Mbaye Gueye bu xasee dugg jeex na. ñu ne deetawaay Falla jóge fële. Falaay Balde ak Socé. kin te kin kin kin kin kin kakan kan kan ki ki ki mu daw dugg si lamb bi mm-hmm. ñooñu ñibbi ñu ne deeta waay dubalees jugal fee mm-hmm. king king king king king king king ñu dox dem ba ñibbi si nit ñi ñibbi kon donc ku si nekk euh, Moussa Diame mm-hmm. ñoom ñëpp ñu nju maam góor gi Ndiaye maam góor gi waaw muy mag kilifa gu baax gu baax muy kilifa gu sopp Seydina Mohamed rafet yow. Mm-hmm. waaw muy kilifa goo xam ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, dafa mas a baax dafa mas a yaru dafa bëggoon yonent bi ku baax am ngërëmu ndey gu baay da koy dund mm-hmm. mu doon kilifa goo xam ne maa ngi koy passé message boo xam ne euh, te lamb war nañ ko fàttaliku parce que def na lu bari islam loo xam ne bu mosaani dugg xoolal maam góor gi bu ñuy jamil ñu ne Sidi jamil ñu ne caate ki tëj mu ne Seydi Diagne xam nga loolu day tugg si nit waaw ku mel ni maam góor gi Njaay nit ñi dañ daan yàkkamte mu ñëw si làmb bay bàkku dëgg la donc li nag mbër yi lu la neex lay tëgg te tëgg dafa am gaam mais léegi yëfu jinne rek lay tëgg dañ ko jug ko dañ ko jug waaw lu la neex léegi xeex yi dañ commencé di ñëw ah, parce que esprit bi la waaw léegi li ma bëgg a xam tey jii maanaam ndax géwél bi buy tëgg maanaam ndax du bokk ci wàllu yu mbër ndax du géwél biy tëgg dafay am cumbukaayam bu muy indaale ci làmb ji wala mbër bi dina ko jox cumbukaayam non mbër mënul jox euh, cumbukaay géwél géwél bu njëkkoon moo daan jox cumbukaay ñoo ko créé voilà waaw bu njëkkoon mhm. géwél comme kati kati bu ko sama papa daan tëggal mhm, seeti naa ko su làmb ji yeexee mhm. bu sama papa dóoree duma ko man sa morom duma. Mhm. day bàyyi xel sama papa. bu dóoraatee ne ren loolu mooy xeexal day xeex. kon maanaam sabar da doon wax ak mbëri koy wax ak moom. bu ko dóoree kati day bu dóoraatee kati day xeex su kati xeexee xeex bi baaxul mu dóoraal mu xam ne kati dafa war a bëri kati dem bëri ji daw song ji. dëgg la kon donc day jokkante woon ak sama papa. dëgg la dëgg loolu moo toxoon kati Diop garaaw. waaw parce que oreille musicale boobu moom suma papa. bu ñëwee gisoo moom bu ma saan ñëw. dan naan kii daaj daata kii moom moom lay duggee. kii daaj kii daaj wuraata basa bari dañ koy jaaw rek kii ay dafa de kintaan kintaan wura daa basa te kintaay te wuraataay kin kintaay kon donc yooyu dafa amoon valeur. bàkk dafa amoon solo parce que bu doon gis dafa am eh, nam si mhm. moom bu doon tëgg day wax. waaw kooku da daan. kay loolu tamit dafa dafa parce que day dem non cest à mhm. la boo xam ne booy tëgg booy yuuxu doo ko tey. mais du géwél yëpp ko mën de. parce que ñoom dañ daan tëgg. Mhm. ñii nañ tëgguñu. ñii tëgguñu. tëgguñu dañ tëgg parce que ñoom hmm, tëgg dafa am lu si nekk tëgg hmm. day woote dëgg la tëgg day cax hmm. tëgg am na lu bari lu muy def si nit dëgg la tëgg day tojal hmm. tëgg day def lu nekk mais xale yi jànguñu ko parce que fekk ñu ko dëgg la waaw ah, loolu moo tax mais tey ji mun demee tey ji ba géwél di yàq làmb tout récemment ñu ne géwél bi yàq na làmb ci ndax lan mbër ma jaar ca gétt ba géwél ba dóor ko ndënd la xaw ma galañ ba ndax jamono yee jamono mag ñi ak léegi est jamono ji luy amoon loolu amoon na nii nii nii. demoon demoon naa combat papa Sow la woon. waaw mais loolu la ba jëlee sabar ja ma lan dóor ko mbër ko waaw loolu. Euh, parce que xam nga. Mhm. dañ li ñëpp bokk. na si ñëpp yem. dëgg la. te géwal. Mhm. day defar waaye du yàq. géwal du am lumb. Mhm. géwal dafay yaatal géwal dafay jubale. tey donte. papa saw sa dafa dugg seen biir. da ko mhm. war a tëggal mu fecc génn dem. loolu mooy civilisation ci lamb. dégg nga li wax naa la dégg bu baax donte. Mhm. papa saw dafa a ñëw da nga ko war a tëggal bàkkam. mu ñëw si den parce que mbër ma préparé di ñëw lu ko tojal yombul. la sa des ñoom ñooy nekk sa biir bëri nag boo ko mënulee. mënoo mhm. daan kenn. ana gàllaaj yu si bëri di dañ koy tekki sànni. sànni mooy leer mooy leer loolu. bëree da ngay am condition mën a xeex mën a bëri. Mm, dëgg la. dama lay wax benn affaire bëri. Mm-hmm, da ngay mën a xeex. moo yor mën a entraînement am coffre mën a bëri. du sëriñ de. sëriñ bee lépp doole. moo lépp doom ju am doole lu tax ngemb ko mu dem bëri. jaaxal na ma Ah, lu tax. <laughs> loolu da mooy dëgg. na ko ngemb ba ay cent millions. waaw mais tey foofu ñu toll. waaw ci waru gàllaaj ci làmb ci waaw yow mi xam làmb. waaw fekk dem fekk tey. waaw mais loolu ndax du la jaaxal. may daf ma waar parce que bu njëkkoon. Mhm. li ma gisoon si làmb. tooke mankaane. léegi amatul tooke amatul mankaane. te gisatu mbër mu ma si yore dinañ sottoo daal seeni i saafara ak seen i sumu ba jeex nga ñëw ñu daan la mais pour tooke ak mankaane. Mhm. nga xam ne da nga doon dóor nit muy kat waaw wala nga ñëw xool ñu gëlëmal nit ba nga xam ne ko yow kii dootoo ko gisati amatul. waaw léegi nag dinañ jël xaw ma fu ñuy jëlee seen téere takk ko ba téere ya sax moo lay daan parce que dootoo ko attan. waaw ah, waaye boo baree xam-xam. da mhm. laaj téere xam-xam bi kay mooy nga bëree daan.